Salut les amis de eSport et de Barber Show. Merci encore Guy de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés. Merci également, Gaël de Baïséni, commentaires, en plaisir renouvelé chaque fois. Des partages et gain d'informations, inbox sénégalais, fait pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal. Hein. Rokhroukhari, Gorgokhari, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital et ci kër du février. feebar na suñu borom fëgg seen bopp. ngeen wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen aussi erreur judiciaire Guinée ñeen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot de droit àdduna suñu borom xar leen àjjana fi doo si gaay te ñu en avance ensemble dans la magie de Baba Show et des Sport TV l'actualité en continu Gaël, ak ñu fas yéene waxtaanee bu lay bu lay xam ne club italien moy insister euh, kii nak di Moussa Niakhaté également publicité en Ligue la colère de Ancelotti ak la mauvaise nouvelle blessure de Cameron Camavinga lépp ñu fas yéene ko wasaare ànd ci ak ci pendant ce temps nag ki nga xam donc LeBron James nee na moom mi ngi rêvé jour boo xam ne ak kii di Stephen Curry ñom ñooy bokk équipe jouer ndo lool dal lañ bëgg fi ni lool dal moy le rêve américain est-ce que ne mën a ah? on verra NBA gis ñaan ñi bokk euh, ci nga xam équipe ce sera extraordinaire pendant ce temps gars yi ki ngeen di gis ni ah donc di euh Marc Guèye ah, de jouer pour Angleterre mom nag gay wa waa ñi nga xam ne donc wa Côte d'Ivoire ñoo ko convoqué te ñu ne woon am na cinq sélections nee na Côte d'Ivoire dañ ko convoqué fekk buñ ko convoqué c'était trop tard fekk amna 5 cinq sélections gars yi la ci na xana ñom renseigné wuñu bobu ba léegi qui que di Paul Pogba bientôt un consultant pour Daz euh, Dazen Dazen plutôt ah. parce que moom jamono nous avons ne ko suspendre football nous consultant ko pourquoi ko c'est un excellent euh, joueur pendant ce temps nag Matthijs de officiellement joueur donc de Manchester United moom mi nga xam ne contrat bu euh, donc 45 euh, signé ñu fay 45 millions à 5 millions de bonus lañ a des dépenses. dépensé qui n'a également du Ugarte fi mu 52 millions le ci à Paris Saint-Germain di laaj ñoom Manchester plus de 60 millions mais Manchester il nee 52 52 millions ko dépassé Ben Lyon pour d'aller di donc Ugarte moo tax fi ne ñu ngi pousse Gallagher xam nak euh, contrat ak euh, transfert am di côté de Atletico dafa daal di capoté gars yi nañ Chelsea nee na ko mu daal di ci suba ah, mu daal ñëwaat du côté donc de l'Angleterre moom mi nga xamné euh, dafa bëggoon ñu yokkal ko salaire am du côté des Blues Chelsea nak ne ko ñoo bañ loolu moom mënuñu ko mën nañ la yokkal waaye li nga bëgg moom mënuñu ko def ah, donc moo ngoog kii nag di Luis Diaz moom ñing koy tudd du côté de Manchester City ñen di ko tudd du côté de barcelona ay rumeur le ba léegi mais rien de concret par rapport ak nga xamné donc l'attaquant colombien de Liver Poul ki ngeen gis na gars yi di Francisco Conceição moom le euh, fils de Conceição l'entraîneur moom on a fini nii Juventus de Turin dal ñu nek di waxtaan ak Porto pour daan ñu ko ñu dal leen koy jay un excellent joueur de boo xam naa ah, football la naam fini fi Juventus ñom ñoy euh, insisté ki nak également di Kalulu mom dal tay wa Milan convoqué wuñ ko ci sen match amicaux yi ba tax na daal gars yi jàpp nañ ne moom Juventus aussi mi ngi xéñ li waaj a concrétiser wu la ki nga donc Pierre Kalulu le défenseur euh, milanais pendant ce temps le joueur sénégalais donc bu nga xam donc joueur de Salernitana Boulaye Boulaye doublé le double dem passe décisive club yu bari ñi ngi pour recruter l'attaquant sénégalais de même que Everton mais Italie mom ñi nga donc officiellement. Euh, prêté à Besiktas gis ngeen ko ni egg fa numéro 73 bi la sol le joueur sénégalais hein, d'origine <clears throat> nga xamné instant il joue pour euh, l'Italie mom dal euh, dañ ko daal appelé Paris Saint-Germain ko appelé pour une saison ki nak di Moussa Niakhaté ma tuddee ko Moussa Diakhaté Niakhaté moom daal dafa bok ci 11 type meilleur recrue Ligue 1 manam joueur yi né ne recrue yu baax baax la ci Ligue 1 mom bokk na ci 11 type bi mom mi nga xamné actuellement il est en train de s'adapter du côté donc du club de Lyon gis ngeen ko donc mu nek ci défense bi mom ak Pacho, Abner, ak Meunier. Yap nanyen dal si, euh, donc, 11 Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. également l'excellent joueur bien nga Don noko. nous Lyon, nan nyom nyen qualifié. Ligue des champions. Lodal, lanyi khèr ki nak di anti-diter flic. Mom nak tablem. Gaïs, 55, 60 millions maximum loko. Dirigeant, you Barça, tegal pou moujen de ben elie. Selon de Deportivo. Donc, monde a dépassé 60 millions pour dire ab joueur. Alors que y a plus de 60 millions. Pendant ce temps, nak, ki di euh, car Ancelotti ci merna ba génn ci ki na kenn waxu euh, Vinicius dem Arabie Saoudite amul fiction fiction la rek gaay ñoko créer mais du ben yoon deug daal Carlo Ancelotti mais aussi ki nga donc Valverde nee mom kii Tony Kroos yar ndax ci peggam le màggee ah, mu koy conseillé mu koy gis mu football donc aujourd'hui bu ba hérité ak numéro 8, na fierté lay dina na ba rendre hommage ak honneur mayo bi néna ki na di club né club donc euh, Kroos ko fi mais dinañ fexe daal ba jëmmal ko ci li nga xam conseil mi joxé ki di Carvajal 72 matchs. 72 matchs nga nar ko jouer ci benn saison dafa beuri ñuy wax ay voyage fi ak yoy mëna lool loolu nek il faut que ñu xoolaat lu ñu mel parce que joueur duñu ay mbaam ay nit lañ lool dal lay wax mauvaise nouvelle pour Kamavinga image bi ci suuf ngeen gis ko ki nak di Luka Modric japp boppam mom nak choc la am ak ki nga donc Tchouaméni daal di yuuxu yuuxu bu metti ba egg ci euh, suuf ngeen gis ni gay nak nan ki mom est-ce que blessure bi nekkul blessure bu graw mais dal gis nañ ko après mu génn mo génne boppam mais euh, ak mi ngi gàññ dal donc ce qui veut dire que dal euh, c'est une mauvaise nouvelle ndax blessure bu graw lo ou pas